Nek, dellu wat nañ ci serigne Abdou Khadir borom alioji ji sëriñ Abdou Khadir borom alioji ji nag yaakaar naa ko yag suivre di askanu TV xam nga ko fi bu baakha baakha ham, baax ci xam-xam bu sel bi nga xamanteni yag ne yàgg na koy ci fi askanu TV serigne Abdou Khadir ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci chaîne bu mag bi di askanu TV. alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëñ maam Thierno ñoo ngi len di ziar di ñaan eh, jamm ci réew mi ñaan yalla suñu borom doli jamm eh, di wax dit lisani nawir janani safi amani, wasit euh ñi ngi ñaanal ba khalifa général suñu borom yokk aw fanam te yagal ko wëral ko waye defal ko mbolem kilifa diina yépp mbolem ko xamna jité nga tariixa ñu la koy ñaanal suñu borom oyefal seen yan ñi nga xam ñom la suñu borom denk wal aduna gi ñi ngi leen ñaanal yalla suñu borom oyefal leen yan bi Eh, kenn ku ne ci ñoom ci réew mu mën a nekk ci àdduna bi rek la tax askan wi fal la ñoo ngi lay ñaanal yàlla na oyof ci yow ba heure buñ la xoolee rek gis na la taxoon ñu fal la yaa ngi ci. jërëjëf Serigne Abdou Khadir ci nuyo bi kon dañuy daal di dugg ci waxtaan bi waxtaan bi tey nag li ñu siy jiital moom moo di actualité actualité nag fi mu ne ko ko wax ci réew mi di Sénégal mënoo ci génne Ousmane Sonko ak Agisar muy coowal Ousmane Sonko li nga xam si ne ci ñaari semaines yii. kon sëriñ Abdou Khadir coow loolu maanaam actualité bi nga xam si ne moo xew ci réew mi nii coowul Ousmane Sonko ak Adji yow lan nga ci lan nga ci lan nga ci mën a wax lan nga ci gis. Euh, jërëjëf sëñ maam Thierno macha allah euh, def nga lu am solo mooy euh, problème am ci réew mi ñu dem xool yi ñi nga xam ne dañuy yëngu ci asraar ndax daa bokk ci ñi ñu war a laaj dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañ leen war a laaj. moy bu buru yi amé ñu laaj leen lan moy ci seen xalaat ak lan la ci diina wax wara man nañu wax tamit xam-xam bi ñu jëngu muy asrar lan la ci jàngale kon def nga lu am solo sha Allah bu ko defee ni nga ko waxé non la démé wax dëgg Yalla gis nañ né fan yi mom cioy li bari na ci dëkk bi lool sha Allah ki man la lool xëy sax euh, man na am euh, ñi ñi dënk réew mi man na am bëggé am ko non waye lu ci man am moy cioy li bari na lool waaye li ci mat bàyyi xel ba mat bàyyi xel te maam Thierno nit ñi war koo xam mooy euh, dëkk boo gis ci àdduna ak réew moo gis ci àdduna euh, dafa am rawxaan ni nga xam ne dañ naan euh, rawxaan bii mooy rawxaanu dëkk Touba wala ñu ne Mbàkke lii mooy rawxaan bi wala ñu ne Dakar lii mooy rawxaan bi wala ñu ne Thiès lii mooy rawxaanu dëkk bi noonu lay amee benn rawxaan bu mag boo xam ne moom mooy doon rawxaanu réew bi rawxaan boobu nag dañoo war di xam jamono bu ne rawxaan bi rawxaanu lu mu fan la taxawee nan la taxawee bu ko defee bu boobaa bu ñu xamee loolu danañu dimbali ci yenn coow yu bari ndax euh, fi na bu ñu delloo ci dëkk bu mel ni Sénégal tey nga xam ne Sénégal mooy jàppalan 401 mooy Sénégal day taxaw ci 401 rawxaan bu am dool la nag macha allah. kon loolu da ciy baax maam Thierno ki nga xam ne moom la ñuy dénk réew moom war nañoo natt raw xaanam nan la demee raw xaanu dëkk bi ndax raw xaanam raw xaanu dëkk bi nattu ko ñaari yoon wala déet wala ndax raw xaanam moo natt raw dëkk bi wala déet bu ko defee bu boobaa loolu bu ñu ko xamee xam ki ñuy fal la xëy na lu bare bëri man naa yomb waaye léegi-léegi maam Thierno nit day ñëw am yéene lool ci réew wax dëgg yàlla bëgg a liggéey waaye xëy na raw xaanu dëkk bi day mën a duma raw xaanam ñaari yoon legi fofu bo ne rawhanu dekk bi ak rawhanu ki nga xam ci ne mom moo jité dekk bi hmm. euh, da fay melne kon li ñuy wax boy dugg ci soxna hmm. da ko wara xol parce que si ñaari rawhan man na am wuté wala deen nga xam ne man ngaa dugg ci soxna si bëgg ko lool dugg ci <laughs> dugg ba ca biir am ci ay jafe-jafe parce que dañ nan la si rawhan, masha non non la démé ci dekk ak ki non la démé xam nga am maam Thierno day ñew bëgg soxna bëgg ko lool am ci yene lool masha Allah xol dugg ci xoolul seen rawxaan ak rawxaan soxna si nan la demee ñu tàmbali rek coow li bari la <laughs> ñaan maam Thierno du moom bi muy bëgg soxna si wax dëgg yàlla moo ñëwoon fii kenn sexalu ko suukar kenn sexalu ko lem fekk maam Thierno sax moom xamul li waral mbir mi soxna si sax xamul li waral mbir mi noonu la amee maam Thierno ci dëkk moo tax man la rawaxaan dëkk bi dañ ko war a xam fi na bu ñu ko tàmbalee ci ku mel ni tey Senghor Senghor nga xam ne bu ñu delloo ci xelmul xuruf eh, day doon 4 eh, chiffres mooy 4 nga del ci xilmal xadat mu jox la 526 yakana suma jumut 526 lay taxaw ci xilmul xadat nee naa la won Sénégal mi ngi taxaw ci 401 koku amna lo xamne boko ci doré rek da nga gis ne mom rawhanam day noot dëkk bi kooku xëy na dëkk bi liñ bëgg ci moom bu ko amut ndax duñ ko mën am sax nag waaye danañ ci am lu bëri ndax xam nga lu tax du mën a dëkk bi ci xilmul xadat waaye bu ñu ci xilmul xorof mom rawaxaana dëkk bi day duma ndax buñu démé ci xelmal khuruf mom fimné mu dëkk bi day don 5 sifur te mom singor bu boba rawhanam ci xelmal khuruf day taxawé 4 sifur nga xamné kon dako man fi ki man ko fé waye bo gisé loolu dakoy dimbale ci mom mën développer développé donte du man andi équilibre la wa kay ba nit ñi mëna dund nga dem ci ku melni tay Abdou Diouf yaakaar naa mooy topp nga xamné da ngay xol ku melni tay Abdou Diouf Abdou nga xamné mom buñu démé ci xelmal khuruf da ngay fekk ne 3 sifur rek la waaye nga dem ci xelmul xadat nga fekk mu doon 66 waaye moom xay na dinaa ko leeral bu doon ci émission bi dana doon ci beneen émission ni nga xam ne dañ koy tànnee président fi ne 66 am bii nga xam ne moo jàpp xelmul xadadam fi ne li liñ ci war a pilis da nga ciy dóor neuf am loo xam ne boo ko wàccee da gis ne raw xaanam day mane bu dëkk bi ndax bu boba day taxaw ci chiffre bu baax bo xamne kuko jox dëkk bi même bu lépp normalu timit dana mën dundu dundu go xamne ma sha allah. dund gu nooy daal waaw kay dund gu nooy gu yamamaay. nga dem ci ku melni tay abdullah wad nga xamne ne moy abdullah abdullah nga xamne bo ñewé ci hilmul huruf momit day doon sept chiffre chiffre sept lu am solo nga dem ci hilmul hadad mu jox la 142 ba tey kenn dëbëgu ci nak rawhan dëkk bi deug ci hilmul hadad ndax mi ngi doon 401 nga xol ku melni mom abdullah wad mi nga xamne day taxaw ci 142 waye momit moy mooy li doon wax léegi fimne 142 yoy nga xamne moy helmul hadadam fina bo ci deure bo ci pilisee neuf pour wàcce ko xam ba xam ndax ki kuko jox rew mi rew mi danañ dund ma sha allah wala det fina da nga dangay gis ne dana taxaw ci chiffre bo xamne ma sha allah. teewu nak rawhanu dëkk bi moy not rawaxaanam waye du ko du ko not 100 man nako non nak ay 80 pour xam nga bu loolu bu la ko mayee oyofal na la ba nga mën a yor dëkk bi yorin woo xam ne dana tane bu baax macha allah. ki fi nekk tey di président Macky nga xam mom turam buñu démé ci xelmul huruf day taxawé 2 chiffres nga dem ci xelmul hadad mu taxawé 60 te waxona la Sénégal 401 la nga dem ci xelmul huruf mu jox la 5. kon mom bo xolé manki na 2. nga xam ne suñu mam ci na man na am yéen a liggéey dëkk bi nak wa xe rawxaanu dëkk bi day mëna duma rawhanam ci ay yoon ay yoon dokoy mëna duma rawhanam nga xam ne kooku même bu amee yéene sax da nga gis ne lu bëree bari day bokk ci li ko yàlla gën a gën a gën a nattoo muy mu teg dara nii mu jàll day jafe ndax suñ maam ne ki lakk gaasuwaalam dem ba daw ay kilomètres ngir teg ab xeer xam nga ne li muy def yitteel na ko bilaay waaye da ngay eh, boo xóotee dara ci lasaraada da ngay xam ne am na yéene mm-hmm. waaye raw rawxaanu dëkk bi dafa mën a duma rawxaanam ay yoon mm-hmm. xam nga nee naa la ñee dañuy tane ndax rawxaan dëkk bi mën na leen man ci 80 pour cent képp ku raw xaan dëkk bi man saw raw xaan ci 100 pour cent nag yow nga liggéey day jafe. daa dana dana indi problème moom day indi problème yu bëri. soit da lay bu doon bu doon jigéen la. Ah, daal dana dañ naan si da koy jiital su boobaa. wér na. <laughs> jërëjëf ci leeral yi bu baax a baax sëñ Abdou Khadir ñu ngi lay sant bu baax ci leeral yooyu nga dalee ca Senghor ba ci ki nga xam ne moom.